waaw moom mooy jabar Zakaria ju benn doom trois ans man keroog dama dama kii sax balaa may jóg moom mu njëkk a jóg mu ne ma maay dem kii Ziguinchor ma ne ko xaalis dépense wi mu ne ma naa dellu si léegi après moom mu dem man ma jóg ma toggal ma bale ba pare ma toggal xale fii laa bale mu lekk ba pare ma dem arrosé dama def kii soble si tool faa fule ma def ma def arrosé ba pare ma arrosé sama ma nekk di jàppale ki yow magum bu jigéen kooku sa du xale mag ma nekk di koy jàppale mu arrosé ci jàppale boobu noonu ma gis suñu kër gi fii ñu romb ñu romb ma ne ma woo ma leen yaasin ñu ul di dem boobu ñu ngi dem faro ñu ne ma dañuy dem faro def fa lan ne ma tanta moo ñu yónni yumpaaño moom la ñuy wax tanta ma ne la ci kan mu ne ma si asom mooy yaay sama jabar sama goro bi waaw ma ne ko li ma ma baale ñu dem après mu arrosé bu ñu arrosé man a meer bi ba mu des tuuti mu gisaat beneen groupe encore ñu ñëwaat ñuy romb mu wóole encore ma ne leen umu ñu wuy foo leen di dem dañuy dem faro ñoom ñëpp encore ñoom ñi tase ak ñi ñi ñi njëkk a dem ñi ànd si dellu ki ñi ànd delluwaat foofu ma ne yéen foo leen di dem ñu ne ma dañuy dem faroo faroo defal la dañuy yónni ka ma la yónni tanta ma ne la ah baax na léegi ñoom ñi dem ma ñibbi si fii ma dem ma tëjji néeg bi xool foofu fu muy dee di teg xaalis dépense bi gisuma foofu xaalis mu ñëw pour laajte yompaañu ndëkk yi ñëwagul mu jëw ma ko laajte moom mu woo ma mu ne ma jàttu ma uyu mu ne ma yow Zakaria ba mu daan dem lan la jël mu dem mu ne ma ma ne ko man man sax xaw ma sax dégguma bruit moto bi ma ne ko xaw man da jakarta la jë wala taf-taf parce que moom li taf-taf la yoroon li taf-taf yi moo paan moo nekk fële taf-taf bu xonk ko léegi moom mune ne ma ma ne ko lu xew mu ne ma mu noppi ba mu yàgg ne ma Zakaria ñu ne dañ ko dóor ñu gaañ ko muy hôpital région mu ne ko Zakaria si boppam mu ne ma Zakaria moo nekk hôpital mu ne ma wax Zakaria la la def bu ñu dóor ko mu ne ma ñu dafa yeboon ay bant si taf-tafam bu mu daan dem mu ne ko Zakaria kañ la kañ commencé def loolu te man xaw ma ah, mu ne ma ñu ne muy hôpital régional dañ ko gaañ-gaañ bu métti man ma changé yére sànguma noonu laa demee ma changé yére ma sol ñi àndul maanaam moom ak ñeneen waa dëkk bi fii nii ñi dem fi ñu eggoon foofu ñun heure boobu mënuñu ko gis ñu teg añ ñu ne ma añ mu ne leen man du ma añ tànku gisuma sama jëkkër naan ma ne déedéet naan aw ma si lu mu nekk après boobu noonu boobu muy réanimation génnoon na urgence bu nekk réanimation bu gën a foofu ñu ñu yëkkati rideau yi ba ñu dem seeti la boobu moom kese moo nekkoon foofu si saal bi ñu dem mu taxaw si vitre damaa yóbbu xale bi ma ne ko xola papa muy na tëdd mu ne papa ma ne ko papa léegi mu ñu mu ne dina dalu si dina mu dalu si dem fële fu ma toogoon Castor lendemain ma ñibbi ma ñibbi ko foofu ma fanaan foofu lendemain bi ma dem ma seeti ko ay 18 19 yooyu ba démb parce que barke démb dañ ma wooñu ne ma demal nga seeti ko démb kenn woowu ma ma toog depuis suba si xale bi may ne papam papam papam bu toogee mu ne papa oyo ma ne ko papa léegi mu ñëw ma ne ko xaaral dégg nga mu ñëw. léegi nag ay 18 heures yooyu ma jóg pour dem sangu ma dem ma dugg si douche bi pour sangu ni ma taxawee noonu balaa may sotteeku ndox sama rongo ñi daan mane ne waaw man la moo may dal la moo ñu xew fii nii après ma sangu ma jàpp pour dem julli jàpp ma jàpp pour dem juli sama yaram nangu xale yaram moom muy tàng jër mu ne man am na luxew xew ñun ñu nekkoon si kër gi ga sama wujju peccor ba sama wujju peccor ba ñu woo ko téléphone mu ne man lay nëbb ma ne ko man lii ma gën si biti rek ma gis ko mu turne ma ne ko jene ba lan la mu ne ma du dara ma ne ko jene ba mënoo ma nëbb man sama yaram wax na ma sama doom wax na ma ma ne ko xam naa lu xew Zakaria moo gaañ nhập à, mình ñëpp ñu commencé yow man mënu ma commencé jooy enquête boobu noonu man bu nekkoon man sama sago lên bàyyi leen foofu comme que moom dem na kay ñi def liggéey boobu noonu bàyyi naa leen ak yàlla du ma dem ci tuur du dem foofu fii laay toog ma xool sama doom moom la ma bàyyi comme héritage moom lay waaw ñëw man man bu ne ko man kese kese ñoom bu ñu dem ci yoon ñu bàyyi ñu bàyyi leen foofu noonu. femme bu bu def liggéey boobu noonu moom lu mu def yàlla dina ko fay